xeetu mbas yu mel ni le ñu koy nemmeeku lu bëri nag ci àdduna bi tey jii ñu wax lu jëm ci wàllu virus yi jamono ji nag raw rawatin nag tolluwaay gi nga xam ne rek am na ko muy Covid 19 ñu daal di koy tàmbale ci jàngoro yi peste moom nag feeñoon ci atum 1720 waaye nag ci réewum France rawatin nag fi nga xam ne rek moom moo di Marseille foofee nag ay junni junni doomu aadama yoo xam ne joojale jàngoro jot na leen a yóbbu laata ñuy am lu jëm ci wàllu ko saafara ci jàngoro joojee atum 1820 jàngoroy choléra daal di feeñ nit fi nga xam ne rek moom moo di googalek dëkk ñoom itam jaaxle woon ca googalek mbas nga xam ne rek moom moo leen gane woon ci atum 1820 atum 1920 itam ñu seetlu ne yeneen jàngoro feeñ ñu koy wax influenza fi nga xam ne rek moom moo di réewum Espagne foofe itam faat fa ay nit ñu bëri mu mel na xeetu virus yu mel ni lay di xeetu mbas yi yàgg na ci àdduna bi euh, seetlu gi moo di itam li muy faat bëri na lool jamono ji nag jamono ji nag lu waxu muy kolluwaay jàngoroy covid 19 gi ak ñi nga xam ne noonu la laale ay réew yu bëri ci àdduna bi